fii nag Daaray Kamil di bibliothèque Cheikhoul Khadim ñu gën ko xam ci Daaray Kamil ñu ngi ko fondé 1977 waaye liggéey bi ñu ngi ko commencé woon 1975 mu pare ci 1977 ñu inauguré ko ci année ci année boobu Serigne Abdoulaye Mbacke nag di ñetteelu xalifa Serigne Touba moo ko fondé woon moo ko ubbi woon 1977 dajale fi lépp loo xamante ni mooy xam-xam bu nit di yittewoo ci léppam bi mu ko defee koo defoon ci ay xaaj xaaj bu njëkk bi mooy lépp lu jëm ci alxuraan ji nga xamante ne lenn ci set Serigne Touba yi ak dongo yi ñoo ko bind ci seen mbindi loxo ay mbind yu wite yu am solo yoo xamante ni boo duggee saar boobu lépp loo aju ci wàllu mbindum alxuraan ci mbindum loxo ci sët Sëñ Tuubaa wala ci taalibe yi mi ngi ci saal boobu am na tey foofu ci saal bi am na ay jeexintal yoo xam ne jeexintal Sëriñ Tuubaa la boo duggee foofu danga ko fekk ñaareelu saal bi nag mooy lépp lu aju ci wàllu téere Sëriñ Tuubaa yi mooy xasida yi wala téere xam-xam yi lépp lu aju ci loolu rek mi ngi ci saal boobu mooy ci saal xasida saal bi nga xamante ne lépp lu aju ci téere xam-xam yi nga aju ci wàllum tawhid wala fiq wala tasawuf wala naxwu lépp lu aj ci wàllu yooyu nga xam Sëriñ Tuubaa def na yi nga xamante moo aj ci wàllu xaside mu def ci ay ay alquran xaside yi nga ko def ay ay alquran wala ay nuru daara ni yoo xamante ni ay xaside la wala li aj ci wàllu ay yoo xamante ni naari Mauritanie wala Sénégal yi ñoo ko defoon ci moom boo duggee saal boobu donc fekk kon lépp lu aj ci mbindum Sëriñ Tuubaa wala lu ñu ko waxal wala lu Euh, culture générale mooy li aju ci wàllu ci xam-xam yi nga xamante moo jógee bitim réew mooy jógee Miss Égypte wala mu jógee Maroc wala mu jógee Algérie wala mu jógee Tunisie mbooleem fànni xam-xam yooyu boo duggee ci saal ba da nga ko fekk lu jëm ci hadis wala mu jëm ci tafsiru Quran wala lu jëm ci tarjuma Quran tradition Coran wala lu jëm ci wala lu jëm euh, wala lépp lu yooyu rek boo duggee saal ba ko fekk wala aar fànn yëpp lu aju ci xam-xam yooyu fànn yooyu ak yeneen ak yeneen bare bare ci fànn boo duggee saal ba da fekk loolu nag lu taxoon ñu def ko sëñ Abdou Lahad dafa bëggoon xam-xam maanaam fonkoon xam-xam xam ne sëñ Tuubaa léppam xam-xam la woon loolu bëgg a woon ci barab bii nga xam sëñ Tuubaa lépp lu am xam-xam la ko amee na inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa sama jihaad ak tubaab yi mi ngi ay aju ci xam-xam ak ragal yàlla